Oh. Eh, eh, eh. <laughs> ñun jiitu nañ leen ah taw taw taw mama Fall. Guèye Fall Fall Fall. Guèye ba ah ça c'est mon petit fils mon mari. comment vas-tu Khalil. na nga suba si. ça va. na la ma baax. waaw bu baax a comme da ngeen na sonno motax tax ma ne leen naa ngeen noppolu bu baax sa yu ngeen jógee rek ñew ndékki. Hmm? <laughs> sino ça va ça va. mais xale mo ma ah, eh, sama di ah bismillah. bon merci bismillah. ma chère euh, dama la fàtte laaj euh, an yi fa yeewoogul wala. Hmm. bon cest à xam nga xam nga Aïcha. dafa am benn benn benn kii bu ndaw léegi. Cheikh daal li ngay wax leerul kii bu ndaw comme lan. Magui Aïcha dafa dem ba màgg bëgg a doxal doxalinu boppam. waaw. kër dafay am kilifa te kër gi yàlla def na man maay kilifa gi waxi kilifa waaw la Aïcha dama ko wax du benn yoon du ñaar yu mënut a fexe ba def li ma wax ci loolu la ñu waxante wax ba. ma dem ba xam ne kii kat wax mënatul ci moom dara bon ma génne ko kër gi dem. génne. Cheikh wax ma leneen yow Cheikh yaa ngi may bëgg a jaaxal li waaye yow Aïcha lan la la war a mën a def ba ba nga koy génnee kër gi yow nit day sàmm kàddoom yow maag yow ba ñuy divorcé France nga gagné garde Aïcha. dafa am loo ma waxoon nee woon nga ma di nga ko téye di nga ko toppatoo ngay may wax nga naan ma ay Aïcha dafa def lii wala dafa def laa war nga ko génne yow yow yow mi yow nit nga yow yow Guèye Cheikh. boobu xam moom li mu def man daal nag bett nga ma bett nga ma de. te li nga def moom wax dëgg neex yàlla moom tey moom def nga ma lu ma naqari nag mu soo maa def lu ma naqari waaye moom tey moom def nga ma ko Aïcha fu mu mënti nekk dama bëgg nga dem indil ma ko waaw. yàkkamtee gis sama doom ñëw di la laaj nga naan ma ay eh, dafa génn dafa def nii kii lan la war lan la war a mën a def ba ngay génnee kër gi ah. non non taxawal taxaw ma expliquer wuy ma Maggy damay mag te ba ngay wax ak Mariama sànq bu dégg maa ngi leen di déglu ma benn yoon ma intervenir man dama doon xalo wax ji fu muy jugee ak fu muy daanoo xool naa nag sa jarbaat xam naa ne xam na lu bari waxoo lu bari Mariama waaye ce que je demal nga gis sa jabar nga dem nga waxtaan ak moom man nag damay goro bi nga xam ne damay defar ndax ñaari xale yi bu ñuy ànd ba yàlla dogal li ñuy dogal lu si mënta am tey takkaneen ya? dangay wax lu baax ndax fu dara dugg ba tey mbokk dugg na xaj sax boo ko génnee mu ñëw rawatina nit te jamono jii ñu ne kenn génneetul kenn medd bi dafa am borom medd mi lu ne ngi fi ñu baax ñaa ngi fi ñu bon ñaa ngi fi man nag li ma lay waxaat dawal sa bi ngay am tànk nga dem jëli say doom balaa moo daje ak lu lu mu waru dajal yàqal la bu ëllëgee ngay réccu sama xarit nga na Guèye lan ma wanoon bitim réew moom laa bëgg fekkaat fi jikko googu la dara yàqal ci àddina ba ngay génne doom ba nañu bàyyi di génnee doom doom deret la doom nawle la sa doom lu mu la mën a def ci àddina teg ko mu toog nga toog ndax nit a nga sëy ay ñaata at munul am doom nit dugg na fu ne pour faju munul am doom kon bu la yàlla mayee doom ak ku mu mën a doom nay toog di waxtaan ak doomam doom ci dafa cher jamaa la c'est pas donné à n'importe qui nag li ma lay ñaan comme sama doom nga tamit ndax sama goro ma jël la comme doom ba jug si ba muy teel nga dem waxtaan ak sa jabar. je m'excuse encore une fois. Hein. merci merci. Nasıl? Ha, Ayşe. Ça va? não não Nora. Merhaba papa. Ouais. Désolé, qui l'a donné? Café bien, Café, au fait, même si je vois un petit placard, non, tu souffles. À gauche. D'accord, désolé, regarde, c'est pas grave, c'est pas grave. defe woon naa ne xam naa la ndekete yooyu te yow am na lu bari war nga ko leeral sama bopp yow Lamine nan nga mën a téye jigéen tëj ko ay fani fani fan tëj ko presque ci kaso ba mu dem ba am doom ci biir kaso nga jël doom ja dem ak moom loolu nan nga ko mane te lenn dinaa la ko xamal gis nga doom jooju di nga ko indi te boo ko indiwul jaral na ma dem ba tribunal ndax doom jooju dina ñëw lu ne jaral na ma ko nag. yow laay déglu ne yaay dama jaaxle. Hmm. sama xel tey na de. ci lan noonu. yaay Aïcha maa ko yar. Hmm. te Aïcha dëgg rek lay wax. du wax mukk lu mu lu lu lu amul. te Cheikh bi may expliqué nee na ma ka xaw ma ki ko bëggoon takk. après euh, Aïcha dafa dem di génn cousin am xam nga. Mhm. mu ñëw laaj Aïcha Aïcha ko ah mu indil ko ay photo photo la. photo Aïcha. Ah, photo ay photo te Aïcha nee na nee moom ki ci photo yi du moom. xanaa du photo nit rek ni déedéet. Ah, kon kay leeral yaay xel amul ci lu mu dem. si lan lay dem fa Aïcha dafa fotow ñëppay fotow. da nga fàtt lu may am doom dafa jël kenn ki yóbbu ko. wala ah, kay sama kanam. waaw waaw yaakaaroon ne ki ci photo bi du moom. Hmm, leen de xam naa ko. Aïssa mi ñuy yar ñu nag bàyyam ñu nekkoon fële ca France du génn du dem fenn julli jàpp lu day ne réewum taax France mu ñëw fi bëgg a yàqu du Aïssa mbaa du li may xalaat. kom li nga wax la de. Ah, man de man man le na de. ma du seex ba. day na war day na war moo tax man bima ma ko seex eh. eh. waxe dama melni def ma do bal. seex daf ko wax rek ma tek waxatuma. yaay toogaay amatul nañ li jenti lolu gis nga ba xalit jógee eh, rek la wax ak geey ndax duma wax ci kanamu xale man mag laa mooy la ma la waxoon rek mag dana toog fu sori di gis xale jigéen du gis comme sa comme géy moom daf laa bëgg te dinaa la wax benn affaire suuxaa nga si moom dana def tout la ma dégg mu wax ak yow dana def tout ba indil la sa doom ji génne be mu génnee na xale bi réccu na ko daa defoon day yar waaye yaroo léegi nag dama lay kenn may lépp nga jël lépp xam nga bu ko neexoon du ko def mais comme dafa ànd un suux yow utiliser foofu rek ba nga gis sa doom neex. dem ba xam nga li wax doom ji ci boppam maa ko jur Aïcha ñaata at que eu. Non. Aïcha, elle a 25 ans. cinq ans loo doon wax léegi dangeen ma yóbbu tribunal yow yow ak moom su ma seetul

te tribunal laa jëm yow Aïcha sama doom la maa ko yar lu nekk maa ko ci def xoolal mosoo gis Aïcha mosoo koo yar mosoo xam ci moom dara Touba duma tuubaa ci kaw kay lii lii kenn du ko Touba tribunal ci kaw la Cheikh dafa am lu ma wax te Aïcha man maa ko yar Aïcha nitu dëgg la lu wax mukk lu amul moom xam naa ko ci te sànq bi Cheikh ñëwee fi ñuy waxtaan mi may expliquer ni xaw ma ki ko bëggoon takk après Aïcha dafa dem xaw ma ànd ak cousin xaw ma kan ak indi ay photo te yaay dafa am luñ fi bàyyi woon Lamine jëloon na sama doom dem ak moom te yow li ci nekk yépp xam nga ko. lu ma xalaat man sama xel dafa tey de yaay. te Aïcha nee na photo yi du moom. Aïcha xanaa xamoon ne lu ma la wax dëgg la. moom man nga koy wax. du moom lu leer la sama xel nag dafa léegi nag tey amatu ci seexam bala yaay jug jot na de seexam bala ba fa ñuy mujj seex bala du Aïcha man daal bi mu ma ko waxee daa mel ni bal la ma dóor du Aïcha tekk laa def Aïcha nañu wër seex ba seex bala Aïcha ni ma ko xamee dëgg gi mu jaaxle naa ak yaru gi mu yaru ak diine gi mu am du jaar boobu la ma xalaat la seex bala waye kon luñuy ñuy ah do dem naxanteeg cheikh moy mu dem gis Lamine mu indi leur sa cheikh seex te bañ fi joggé xam nga yóbbu woon na ko si ko né won fi amna loi te dina la wax de police Sénégal xana luñu bëggul dugg waye luñu ñu dugg mu leer. waye yaay tamit nan lay tebé nan Cheikh euh, Aïcha dafa am Cheikh loolu mënu mako ko wax ni waaw bu am bàq xamalu ko olof di wax bu ndox touré am bàq dess do ko wax mom moo ñu mën dimbali gannaaw yalla yombeewul nañ ko foogee de. man a góor la xam na fu muy dugg bàyyi koog moom dalaa bëgg jaral nga ko ba ko ne woon ajjil eh, étoile bi mu àjji ko yoo koy bàyyi koog moom man daal ki na ma ko indil waaye Aïcha moom yaay na ma indil Aïcha ci ñëpp la ñaar yëpp dinañu ñëw. ci kàttanu yàlla waaw man moom dañ koy lijjanti mais Aïcha moom na ñëw ci kër. Cheikh ko loqati. waaw bu boo mënee waxata waxaat ak moom nga moom. bu soobee man daal Aïcha na ma ko indil. wuyu ma defal nank àndal ak yàlla àndal ak yàlla Cheikh dina ko indi nee naa la dafa la bëggaat fi mu ne boo ko ne woon ajjil ma étoile yi mu ajji ko gëmoo li ma la wax. yaay ma ak ay waxu bëggante man moom moom. Ah. yow xam nga lépp nu demee. ma ne dimbali ma jigéen taara booy sëy. Mariama moom tam moom instant yi moom. ma ne bu sa ñaari doom bu la indilee sa ñaari doom doo fay kóllëre gi. man yow toogal foofu bal màgget da nga xam ne taar du wéy man sa ndey maa la dax dàqoon fopp gën laa jekk. waaye ak fi ma jaar yëpp. waaye jàllal ne leen ma def yëpp. waaye ku bokk see xeetu Seydina Mohamed Sow ñu ngi sant yàlla di julli ci Seydina Mohamed taaru jigéen mooy sëy dara du la jaaxal. ma ne fi ma jëm jarul jox loxo. jarul ko kay dem naa. Touba amu fi ca kaw a kaw doom di peeñ ma xam ne sama doom la. wallaahi loolu dina leer. waaw Touba ban neel waaw. day def neel waw waaw. tey nouvelle bu neex laa leen di. Mhm. waaw. Iya. fa laay commencé. Mhm. mu bëgg nga say bagage nga ñëw ñu jaar ni dem ñibi sa yaay ñëw na sama hmm c'est bien. xanaa kon paa bi content na Aja. Ah. hmm saya la wax de mo ñew jóge voyage ñew ak sa moom xale et eh non déggoo ma déggoo mu baax na sa yaay mi nekkoon Europe moo ñëw ak sa ñu ngi kër ga falaan laa bàyyi léegi. ta mère. Eh, xale dégg naa la et eh, alors. Aja sa wax de mu ngi kër ga sa yaay ak sa ñu ngi kër ga yow la ñuy xaar. Diawlo. ni sama yaay daa ñëw. sama yaay man. Hmm? ko man am naa yaay nekkati. je savais pas. man <laughs> maay sama yaay bopp maay sama baay bopp maay sama doom yi bopp maay sama jëkkër bopp. chegou. Mostra pra ela la prueba? Tchau, tchau. eh yeewul laa wax yeewu jot na yeewu jot na waaw amul ci laa wax ma wax nga naan ma demal ci Lamine Ndiaye mu jox ma sama doom ndekete Lamine doom ja moom la jël jox ko bii baa Biba Biba delloo la ko te doom ji ay la yow yaa mën na nëbbatu waaye lenn dinaa la ko xamal Aïcha man maa ko déclaré adopté ko kenn laa ko du jox ndax Lamine nee na ma delloo ko doomam. Cheikh Aïcha dafa am seex. lan Lamine Ndiaye moom dëgg la dama doon seeg moom yow nga ne Aïcha Cheikh la ah oh ah je comprends maintenant kon kay man Aïcha yaay na ma kon ki nekkoon ci photo yi kon ndekete du Aïcha yow erreur bi ma def loo xamuloo ko sax yow tax nga Aïcha ba ma te la mu doon wax yëpp dëgg la ndekete ki nekkoon ci photo yi seexu Aïcha la kon yow maa ba yow jaroo xam sax ndekete lii lan moo tax waxloo ma ko. Lamine Ndiaye dama doon sëy ak moom Lamine woon dara. këram lépp a fa amoon piscine sax amoon na fa mu bari alal lool waaye ci biir dafa nekk nit ku bizarre këram bi ma fa nekkee amul jafe-jafe bu ma ko woon rek ay ngelaw yu may romba ay cin yu yëngatoo loolu dem ba nga xamante ne mënatuma fa toog ma daal di tiit takk samay bagages yi damay génn te ba may dem sa xaw ma fan laay ni may génnee nonu rek am malaise daal Lamine ne ma cas daal di may kidnappé yóbbu ma fu ma xamul tëj ma ci néeg joxuma ma lekk joxuma ma naan maltraité ma ba ma keroog ba may ma taxaw rek kon keroog sama bakkan bi dama ko noru nekk ci laa am doom mu ñëw yaakaar ne benn doom la mu ne ka ma njëkk am mu ne ko cas yóbbu seexu ay sa bi ma lay wax nag ci mooy Aïcha mii tey nga daal di jël Aïcha ànd ak sama yaay dem Europe ndax loolu jax bëgguma woon sax bañ na bu ma la de mais dafa am yoo xamante ne bu ma koy nettali sax daf may fàttali lu metti yooyu te man dama dem ba nga xamante ne Lamine lu jëm ci Lamine bëggatuma ko sax xam li may nekk Europe yëpp sama xel a ngi ci sama doom bi Lamine jël mais Aïcha musul xam ne moom dafa am feex xam naa ni mer nga torop waaye lenn rek laa lay ñaan Aïcha bu ko mës wax ni am na feex ngir yàlla dama la ko ñaan jangi Hakuna khatar na kowa ya mamdu hadi nena mamdu hadi Kamsa mawaye